قال المسلم رحمه الله فصل في كون الإمام يجب الطاعة ويعصي المعصية وأن قال وأن قال أحد الذي لا يكون شر من الشرك إلا إذا استحله عنه أهل المشيئة وأن القول مقبول على الواجب إيمان ما يزيد الطاعات ونقصه يكون بالسلام وأنه فيه على القواعد هل أهلك الأعمال فوق رسلي والفارق مني في العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان لكن لقد الرزق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص ولا نقول أنهم في النار مؤلف بل أمره في ذلك تحت تحت مشيئة الإله بعد مشيئة الإله نازلة إن شاء عفى عنه وإن شاء عافى لقدر مجده وإلى الإله يخرج الإيمان على الإيمان والعرض يجيب الحساب إنما ومن يناقش الحساب عزبا ولا ترك بالمعاصي المؤمنة إلا مع استحلاله ما جاء وتقبل توبة قبل الغبرة كما أتى الشيعة المطهرة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 ci bunt yi am solo la bokk bokk ci gëstu yi gën a xóot itam ci lu jëm ci wàllu pas-pasu ahlu sunna wal jamaa doon bunt yoo xam ne yoo mat a xam la ndax boo ci jeng lu tuuti rek moom bootu tàbbi ci biddaa loolu moo tax mu mat a xam lool ay masala daf ne faslun fi kawni al imaani yazidu bi taa wa yanqusu bil kooku mooy masala bu njëkk bi fi kawnil imaani ci nekkuk ngëm yàlla yasiidu di yokku bi taati ci topp yàlla wa yanqusu muy wàññiku mansiyati ci mooy yàlla kon masala bu jëkk bi moo di ngëm yàlla day yokku di wàññiku ngëm yàlla dana yokku waaye dana wàññiku wa anna faasiqa ahli lmilla laa yukaffaru bi danbin duna shirki illa ida staxalla kookoy beneen masala bi moo di wa ann faasiqa ahli lmilla mooy kàccoor bi nekk ci lislaam kàccoor bi nekk ci lislaam danañ xam lan mooy kàccoor ci kanam kooku laa yukaffaru dii su ko yéefarloo bi zanbin bu mu def duuna shirki bu àggul ci bokkaale bàkkaar ba lu mu réer ginnaaw àggul ci bokkaale diisu ko yéefarloo illa ida staxallahu lu dul su ko dagan lu dul su ko dagan fekk lu yàlla xaraamal bu ne lii dafa dagan kooku nag su ko defee moom kéefar ñëw na ndax daa weddi wax yàlla wa annahu taxta almachia ne moom moom yi mbiram ab atteem ëllëg ci coobare suñ borom la aju bu ko neexee mu bëggal ko bu ko neexee mu jéggal ko kookoy masala ñaareel bi ñetteel bi moo di wa anna tawbata maqbulatun ma lam yugargir wa anna tawbata ne tuub lu ñuy nangu la ma li feek nekkul ci sukuraat nit ko nag soo xasee nekk sukuraat mu wóor ko ne moom faatu ba noppi fii moom amatu fi dara mu door ne ah man ka tuub naa bokkaale ga ma doon def wala nangam ba ma doon def su boobaa tuub ga moom kenn dut ko nangu kon loolu mooy tiitaru bunt bi nga xam ne moom lañuy ñuy jàng tey ak li ci aju ci ay masala mu tàmbali nag di détaillé mu ne imaanuna yazidu bi taaati wa naqsuhu yakunu bi zallaati imaanuna sun ngëm yàlla imaanu naa sunug ngëm yàlla nun nun ñi gëm yàlla yasiidu dana dana yokku dana dolliku dana jëm kanam bi taaxaati ci topp yàlla ya kon topp yàlla mooy li nga xam ne day tax ngëm jëm kanam day yokku kii jël ay waxtoom di ko def ci topp yàlla topp yàlla bu mu jógee rek dugg ci geneen bu jóge jógee dugg ci geneen li muy def lépp doon lu baax bu seetloo boppam dana yëg ne jamono yooyu ngëm yàllaam dafa yokk boo seetoon nit ñi jamono yi nga xamee ne weeru ramadaan ñëw na ñu dem ba toll ci fukki fan yu mujj yi tahajjud beeg njàngum alxuraan meeg jëf yu baax yooyu nit ki bu peesee ngëmam foofu seetluwaat boppam dana yëg ne bokk na ci jamono yi nga xam ne ci lay gën a am ngëm loolu kuy seetlu ku nekk da nga seetlu loolu da yëg ne da nga diggante boo xam ne foofu luñ ne la woon lislaam bëgg na ko ci yow te man ko rek loolu da nga jóg def ko loola nag mooy wane ne ngëm nga yokk na booba wa naqsuhu yakunu bi yàlla nag day dolliku kon di wàññiku li nuy won ci diine ne ngëm yàlla day yokk bari na lool Eh, li ci nekk ci alquran ci aaya yu koy wone bari na comme waxi borom bi li yasdaadu imaanan maa imaanihim li yasdaadu imaanan maa imaanihim mooy ngir seenu ngëm yàlla dolli ko ànd ak la fa nekkoon walladina htadaw jub jaar ci siraatul mustaqim di góorgóor nee na zaadahum hudan da dolli njub njub googi mooy yàlla aay yu bari la innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan ñi gëm yàlla na mooy ñi nga xam ne buñ leen jàngalee ay alxuraan yi ñu ko ci seen xol ba noppi mu dolli leen gëm yàlla wajilat qulubuhum seeni xol day tiit waaye mu dolli leen ngëm yàlla suñ dégloo alquran xam lam leen di wax loolu daf leen di dolli ngëm yàlla kon ngëm yàlla ci boppam day yokk yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadis ne inna akmala almuminina imaanan axsanuhum xuluqan ki gën a matle ngëm yàlla ci ñi gëm yàlla mooy kii ci gën a rafet ay jikko maanaam su ngëm-ngëmatee jikko yu rafet loolu la xadis bay joxe xadis bu wér la Tirmisi ak Ibnu Abi Shayba génne nañ ko ci sanad boo xam ne xasan la kon dalilu ne ngëm yàlla day yokku alquran la ak sunna ak alxis alquran tegtale na ko ne ngëm yàlla day yokku sunna tegtale na ko ci ay xadis yu bari boobu ma tudd benn la ci yëg-yëgu doomu aadama itam dalil la ci nit ku nekk dana toll jamono yoo xam ne dana yëg ne su fekkee ne mi ngi contrôler boppam nag laa waxuma ko bàyyi boppam lu ko neex def lu ko neex bàyyi waaye kii contrôler boppam dana toll jamono yoo xam ne dana yëg ne moom ci jamono yi la gën a gëm yàlla ci la gën a dëgër ci la gën a sawar ci diini ji ci la gën a sawar ci jaamu yàlla yi toll ay ja yoo xam ne day yëg li ñuy wax futuur mel ne moom dafa xaw a dellu gannaaw xaw fooyooy ci wàllu ngëm activité yam doon def wàññiku na teeweetul duroosiya fa ñuy jàngee su ci jëmee sax du sawar day mel ne dañ koy puus jëmale ko ci loo xam ne lu koy taayal lool la su jógee jëm ci jullikaay ba noonu lay mel julli guddi waxi noppi kon jamono yooyu mu ngi ci wàññiku ngëm yàlla gëm gi jamono yoo xam ne góor lu nga ci topp yàlla muy yokk li nga koy xame da ngay gën a sawar ci jaamu yàlla da nga gën a sawar kon ngëm gu yokk noonu lay mel kon kenn ku ne ci sa yëg-yëg war ngaa contrôler sa bopp ba xam jamono yoo xame ne yëg nga ne tension yow ngëm gi mi ngi wàcc nga gaaw fexe bam yëkkati ko yéegu tension moom foofu rek la baaxee maanaam tension ngëm yàlla kooku moom daa war di yéeg rek di lépp lu koy yéegee rek defal sàkk sarax yaag julli guddi yaag wax ju baax jàng alxuraan koori ngàtt nga yaag lépp loo mën rek nekkal ca loola su ko defee dañuy wax ne euh, maanaam pour wane xis boobu sax sax na ci xadis xamsala benn bis ñëw na fi yonente bi sallallahu alayhi wa ne ko nun day danoo gis buñ toogee fi yow di la déglu ngay wax li luy yëg ci xeetu ngëm yàlla ak force ci ngëm yàlla ak suñ delloo suñ kër ba waxtaan ak xale yi waxtaan ak jigéen ñi yu mel noonu ni muy wàccaate danoo ragal ne nun daal ay naafeq lañ mu ne leen déedéet loolu du naafeq su fekkoon ne ni ngeen di mel su ngeen toogee fi man melokaan boobu day continuer rek fu ngeen toll mel noonu kon dey mujj malaayika yi dañuy wàcc di saafuwante yéen yéen kooku misaal la ci ne kon da ngeen di mujj mel ne malaaka maanaam du seenum ndoom aadama day làqu kon ay malaaka ngeen di daal di bëgg doon te nit nag mënut a doon malaaka moo tax mu nekk walakin saa wa saa maanaam léeg-léeg def ci lii léeg-léeg nga nag ci kër gi dellu ci njaboot gi dellu ci gone yi dellu ci xarit yi waxtaan waxtaan ci mbirum àdduna mu xaw a wàcc tuuti nga yéegewaat noonu la mel kon ñooñu yëgoon nañ ci seen yëg-yëgu bopp ni ngëm yàlla gi ndekete kat moom dana di wàññi ko waaye boroom xam-xam yi dañuy tegtaloo ci ne dalil bi gën a rëy ci ne ngëm yàlla day wàññiku mooy lépp luy yokk lu ne rek day wàññiku amut luy yokk te du wàññiku loolu moom xel nanguwu ko xelum doomu aadama nanguwul ne am na luy yokk loo xam ne du wàññiku ndax ba yokkoo nam toll woon ba yokkoogul noona moo yées kon noonee mu toll woon wàññiku la tudd moo tax ñu ne bokk na ci xikma ak balaaxa bu alquran moo di jékkiwul di indi aay yuy wone ne ngëm yàlla day wàññi bi mu indee aay yu naan li yasdaadu iman maa imanihim seen ngëm yàlla yokk rek ci lañ xamee ne kon ngëm yàlla day wàññiku kon dalil bay wone ne ngëm yàlla day yokku mooy dalil bi wone ne ngëm yàlla day wàññiku kooku balaa xabu xóot la waaye li am solo mooy nu xam li koy yokk ak li koy wàññi loolu la ci itteel waaye werantew dana yokku du yokku kooku moom nit ñi weesu nañ ko am na jamono yoo xam ne ñi ñuy tudde almurjia muy benn kuréel boo xam ne dañ ne ngëm yàlla du yokk ñëpp a ko tolloole loolu ak ak la kenn ku ne xam na ne ñëpp tolloole wuñ ngëm yàlla kenn nit ki sax ngëm yàlla am tollu tolloowut ci mboolem jamono yi léeg-léeg mu tollu jamono yoo xam ne ngëmam day yokk léeg-léeg mu toll jamono yoo xam ne ngëmam day wàññi ko waaye ñu xam ne daal la koy yokk mooy topp yàlla def ndigal yi ak bàyyi tere yi loolu la ñu tudde topp yàlla la koy wàññi nag mooy safaan ba mooy def tere yi ak bàyyi ndigal yi fekk luñ la tere nga di ko def fekk luñ la digal nga bañ koo def wala ngay def sax luñ la digalut topp am na jaamu yàlla yi am na ci parti bu am solo boo xam ne nit ñi dañ ciy sonn lool te fekk digaluñu leen ko kooku mooy li ñuy tudde biddaa yu bare bari yoo xam ne ñoo ko fental seen bopp tudde ko ay jaamu yàlla di ca nër nëri di ca sonn di ca def seeni alal loola kenn sant leen ko loola moom du yokk ngëm da koy wàññi ndax biddaa mooy yàlla la lépp loo xam ne dafa dugg ci mooy yàlla rek dafay wàññi ngëm yàlla moo tax mu ne wa naqsuhu ak wàññi koom yakkoonu day nekk bi zallaati ca bàkkaar ya bi ca bàkkaar ya kon wàññiku ngëm yàlla ci bàkkaar la nekk yokku ngëm yàlla ci topp yàlla la nekk wenn bayit woowu rek daanaka doy na dars ci bis nit ko dem góorgóorlu ci luy yokk ngëm yàlla góor góorgóorlu wattandiku lépp loo xam ne day wàññi ngëm yàlla mu jeex su ko nit ki jëfe woon rek mu doy mu indi beneen masala nag muy nit ñi dañuy ëpplente ci ngëm yàlla moo tax mu ne wa ahluhu fiihi ala tafaaduli wa ahluhu ñoñam maanaam ñoñ ngëm yàlla waa ngëm yàlla wala nga ne way gëm yàlla yi way gëm yàlla yi way buñ ko waxee ci li muy dugg jamo lay nekk maanaam pluriel lay doon léeg-léeg nga dégg nit ñi juum foofu di wax ne diw sàngam ab waykat ab waykas xabaar la loolu njuumte la way ji mbooloo la waaye bu dee kenn ki aji tas xabaar ngay wax wala aji nàngam moom la ko wolof waaye boo dee way moom mbooloo la kon wa ahluhu way gëm yàlla ya mooy nit ñi gëm yàlla ala tafaaduli ñi ngi ci ak ëppleente fii ci moom maanaam ñi gëm yàlla daal tolloole wuñ gëm yàlla murji ak képp lañ mas a dégg muy kuréel bi wax ne ñépp a tolloole e, bu ñu am ci ngëm yàlla gëm yàlla bi yokku ko wàññi ko nen rek la mel loolu laa chaque njuumte lu mag a mag a mag la loolu moo tax ñoom ñi daganal lu la neex def daanaka ndax dañ ne bàkkaar du wàññi ngëm yàlla sa ngëm yàlla daal ma nga ko moom new xeer la mel du yokk du wàññiku kon lu la neex sooy boo nga def kooku musiba la moo tax mu ne la hal anta ndax yow kal amlaaki dangaa mel ni malaaka yi aw kër rusul yi wala dangaa mel ni yonent yi ah ndax yow nitu ordinaire ki sa ngëm yàlla toll ni ngëm yàlla ak malaaka déedéet ndax su ngëm yàlla toll ni ngëm yàlla ak yonent déedéet tolluwul ndax ñooña lañ gis ba tax ñu gëm day yuñ teg seen bët yow nag yi nga gis ba tax nga gëm day yoo xam ne dañ la ko wax nga gëm ko am na ci nag yoo teg sa bët ndax am na firnde yu bare bari yoo xam ne dañ la ko waxoon ngay dox ba gis ko am firnde yu bari yoo xam ne moo lay wan ne alxuraan dëgg la mu doon ay yaqiniyaat yoo xam ne dem nga ba am ci yaqin ci sa xol ne lii nii la loolu mooy gëm waaye nag li ñuy wax naan wedd gis bokku ci li nga xam dañ cee teg sa bët moom kooku moom sikki sàkka mënut a jëm si xolam malaaka mi yàlla ne kaay mu ñëw mu ne ko demal defi nangam def nangam mu ñëw kooku moom gëm yàlla wax dëgg mënoo faa àgg nag yow mënoo faa àgg moo tax mu ne la hal anta kal amlaaki aw kar rusuli ndax dangaa mën a mel ne malaaka yi wala yonent yi sa niveau ci ngëm yàlla mun a àgg foofu kon loolu rek mooy dalil bi lay won ne la waa ngëm yàlla day seenu ngëm yàlla tolloowut dañ cee rawante nit ñeet nag noonu lañ ci rawante doomu yi noonu lañ rawante ci yàlla daanaka ni ñu sutantee ci seen bind yi wuute ñii gudd ñii gàtt ñii am dara ñii amuñu dara ñii noonu la ñuy rawante maanaam jubluwuma ne ki gudd nag ngëm yàlla am day day yokk ki gàtt ngëm yàlla am déedéet waaye dama damaa joxe misaal ci ne ni ngay gis ñuy rawantee ci noonu ci ay guddaay ak gàttaay am na geneenu rawante gu mel noonu goo xam ne ci ngëm yàlla la jëm wax ñu bare bari seenu dégg wolof dafa xara ñëwut lool buñ génnee daal di ne nee na ku gudd ngëm yàlla am day mat ku gàtt ngëm yàlla am day day faat waaye jubluwuma noonu dangay gis ñoo xam ne seen diine lëm leen jaral keneen a ngi ci seen wet koo xam ne moom da leen cay génne sax faf gis ñaari nit kii di góor góorgóorlu ci sunna ab nattu tegu ci kawam mu continuer lu mu metti metti mu yanu ko jaral na ko sax buñ ko génne woon muy dem fanaani ca mbedd ma gis keneen koo xam ne bu ñu ne ko boo bàyyiwut nangam ak nangam sooy boobu nga génn kër gi mu daal di ñu tolloowuñ te nag du lu bees noonu la demee woon ci saxaaba yi waxoon na leen Ammaar ibn Yaasir taala anhu jamono yiñ koy mbugal mbugal mu metti ma ba muy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ju jaaduwul jë ba alquran di wàcc di wane ni jéggal nañ ko ndax dañ koo forcé illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman jamono yooyu bilaal ñu ngi koy lakk ci sawara ci xeer yeeg naaj wu tàng weeg yu mel noonu te benn kàddu bu leen neex mosuñu ko déggee ci moom te sharia mayoon na ko ruxsa maanaam sharia defaloon na ko ak yombal su ko neexoon mu wax leen du leen neex ndax ñu bàyyi ko mu mën a mucc waaye jëlul ruxsaam moom dafa bañ ngëm yàllaam mu àgg foofu kon ñaar ñu mel noonu mun ñu leen a tolloole mukk nag ci ngëm yàlla nit ñi nag noonu rek la ñuy mel di noonu la ñuy mel am na ñoo xam ne bu fit nañu ñu daal di arrière delluwaat ci seen i néeg toog am ñoo xam ne ginnaaw ci dëgg lañ nekk kenn mën leen caa jëlee ak lu mën a xew na lu mën a xew na xew waaye ñoom liñ gëm ba nekk ci te mu wóor leen mooy dëgg mëne su leen caa dindi mëne su leen caa delloo gannaaw kon loolu mooy tafaadul bi ndax buñ nee dañoo wuute ci ngëm yàlla rek bul jàpp ne la nekk ci xol ya moo wuute mu jeex waaye lii feeñ ci bitti daf koy wane yëmul rek ci njàmbaar ga ak fëttéerlu ga ak dëgër gi ci diine waaye day dem ba ci jikko yi ak leen yi ki ñëw bay yor ab loxoom xool fàttaliku naa bii dërëmkat moomu ma ko diwa ko moom daal di koy tegaat foofu bokkul ak ki nga xam ne boo ko dénkee kees lu mu ca mën a wàlli wàlli yóbbu doonte ñoom ñaar ñëpp ci daairatul iman lañ nekk ci gëm yàlla lañ bokk waaye seen gëm yàlla tolloowul kon jeexit yi ci bitti jeexit yi ci bitti moo nuy woon nit ki fan la ngëm yàlla am toll rawante nag gu réeréy la nit ki nag mën naa suufe di góorlu ba raw ña ko rawoon kon may daan la boo xam ne course la kay daw bul ko bul ko yéem ba ne man mënuma lu mel noona parce kii ab saxaabi la wala nit ku baax la wala ban waaye góorlul yow fexe ba kenn du la raw kon kooku mooy masala bi ci tegu muy way gëm yàlla yi dañoo ëpp leente lool ci ngëm yàlla mu teg ci mu ne wal faasiqu lmilliyu dul isyaani lam yunfa anhu mutlaqu limaani ki ñuy tudde alfaasiqu lmilli alfaasiq moo xam naa la mooy ab kàccoor kàccoor mooy kii def bàkkaar bu mag boo xam ne feeñ na bañ xam ne mi ngi koy def su feeñu tit digganteem ak yàlla ab kàccoor la waaye nag nit ñi mën a gu ab kàccoor la ndax xamuñu loola loolu nag li leen wutale mooy kàccoor bi nit ñi xas xam ne ab kàccoor la am na ay àtte yuy tege ci kawam kàccoor bi ñu xam ne ab kàccoor la kuy def ay bakkaar yu mag la te ma nga ca tuubagu ko ba mu feeñ kooka bu ñuy wut seede ci lislaam li ñu tudde témoin kooka dañ koy teg bokku ci matub seede bu ñu tànn ilimaan dañ koy teg ginnaaw gis nañ keneen ku ko tane su fekkoon ne moo fa tane nag su jiitee it nit ñi moom seeni julli yàquwut waaye moom mën nañoo bañ a nangu ak julleem kon am na atte yu tege ci kaw faasiq muy kàccoor kon mooy kii def bàkkaar yu mag moo xam feeñ na wala dafa nëbbu su feeñut digganteem ak boroomam la nga xam ne kàccoor la na dem tuubi waaye su feeñee nag nit ñi dañ koy daal di teg atte yi walfaasiqu almilliyu mooy ku ñuy askane ci millatul islaam nga xam ne jullit la bu doon faasiq boo xam ne ab yéefar la kat kooku kooku moom keneen la taxul ñuy wax moom waaye alfaasiqu almilliyu moo ñu tax ñu wax mooy kàccoor boo xam ne mi ngi ci biir lislaam doon ab jullit ba noppi fekk ay farat yi ñu ko digal mu lànk bañ koo def wala bakkaar yu mag yi ñu ko tere mu lànk di ko def kooku mooy kàccoor moo tax mu melal ko mu ne dul xisyaani kay boroomu mooy maanaam kàccoor boo xam ne mooy ko yàlla la kooku lu dib atteem mu ne lam yunfa anhu mutlaqul imaani dafa am ab atte fii ci àdduna am ab atte ëllëg ci àllaaxira ndax boroom xam-xam yi ni ñuy séddalee nit ñi ahlu sunna wal dañ cee wuute lool ak yeneen kuréel yi nga xam ne dañoo ne ci biddaa ci ki nga xam ne dafa def bàkkaar bu mag ba faatuwaale ki def bàkkaar bu mag ban àtte lan koy jox ci àdduna ak ban àtte lan koy jox bu ëllëgee ci àllaaxira faatu nekk na di def bàkkaaram yu mag wala iyaasu billaah ba faatu te tuubul kooku bu dee almutazila ñoom dañ ne bu dee fii ci àdduna duñ ko àtte duñ ko àtte mooy lan mooy amutub atte ndax génn na ngëm yàlla te tàdduwul ci kéefar kon mu ngi daal ci aw xur woo xam ne xur wi daa nekk ci diggante ngëm yàlla ak ub kéefar ginnaaw mi ngi naan sàngara nee nañ génn na ngëm yàlla fu mu tàbbi ñu ne ko tàbbi na feneen waaye foofa du kéefar fu mu doon foofu ñu ne manzila bayna manzila tey foofu la nekk loolu mooy wenn xur woo xam ne daa nekk ci diggante ngëm yàlla ak kéefar mooy seenub àtte ci àdduna ñu ne waaw mu'tasila kooku la dib àtteeb ëllëg ci àllaaxira ñu ne ëllëg day tàbbi sawara sax fayit la faaw nag kooku moom xurwam nekkoon amalu ko njëriñ mënoon naa far àgg rek benn yoon ci kéefar yi xawaari ji ñoom ñoo gën a pratique nag foofu ndax dañ ginnaaw def na bàkkaar bu mag moom génn na lislaam ab yéefar la pour ñoom moom ku def bàkkaar bu mag moom yéefar la bu ëllëgee luy sab àtte sax faaw nañ ca sawar kon ñoom seen yëf moom dëppoo la ñoom gën a tar nag ci ci ci askan bi nit ñu tara tar lañ ñu garaaw lañ ñoo xam ne seen mbir lu ci bare bare ci kaw ak xér ak réer ñaari yooyu mooy ñaari màndar yi gën a fës ci mandarga xawaar yi xér ci deful lépp lu baax moom kenn duñ leen cee xér waaye nag ñoo gën a réer ñëpp ndax sàkkuwuñ xam-xam seenu xér rek lañ topp kooku mooy alxawaar yi moo tax ku juum rek ñu ne génn nga ku juum rek boo tàbbee ci benn bàkkaar bu mag rek ñun la génn nga diine ci ay kuréel sax lañ nag yu gën a tar waxoon naa ne la am na ci kuréel boo xam ne dem nañ ba jàpp ne bu defee bàkkaar bu mu yëgul sax génn na moo tax ñoom nit day dem ba mu yàgg moom mu ñëw di beesalaat dem ndax jàpp na ne moom def na kéefar te ko kon day tuubaat loolu ak taral la am na ci ñoom kuy wax ne bu doxu sàngara tàbbi woon ci teen benn toq tàbbi ci ab teen te nit ñi yëguñu ko ñi cay root di naan ku ca naan rek génn nga lislaam musiba la kooku kenn du mucc seenu taral foofu la àgg te it doon nit ñoo xam ne fitna lañ ci askan wi ndax ay jaamukati yàlla lañ yoo xam ne li leen jaamu yàlla jaral ak jàng alquran ak def lu baax ak def lu kii waaye tar gu ëpp ga moo leen génne ci sunna ñu alko moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu leen melale daf ne yamruquuna min ad diin maanaam dañuy rocciku di génn diine te yëguñu ko kama yamruqu assahmu min arramiya fett bi ñuy tiire muy dem na muy génnee ca euh, xala gañ ko doon tiire na muy génn nee na ñoo ñu seen imaan noonu lay génne di dem ànd ak seen xër gu metti boobu ñu xër moo tax ñoom ñu mat a wattu lañ ndax boo leen jegee boo yeexee ñu yóbbaale la ndax faw ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di waxee mooy kenn ci yéen day xeeb ak julleem ci kanam seeni julli xeeb kooram ci kanam seeni koor na boo dendee ñoom rek xeeb sa bopp danañ yëkkati seen bopp ba àgg foo xam ne euh, day jéggi dayo waaye nag pastos yaa leen yàqal pastos baa ñëw yàq lañ doon def lépp ñu génn pastosu ahli sunna wal jamaa daal di àlko kon ñoom loolu lañ àtte ci ci def bàkkaar bu mag ba faatuwaale ko bu dee fii ci àdduna nee nañ ab yéefar la bu ëllëgee nee nañ ma nga sawara ahlu sunna wal nag ñoo ne ci diggante bi ñooy dund li ñuy wax alwasatiya ñoo ne ci digg bi moo di ki def bàkkaar bu mag kenn du wax ne bi yéefar la moo tax mu ne lam yun fa dàqeeful maanaam kenn dàqul anhu walis ko mutlaqul imaani léppi ngëm yàlla maanaam ngëmam léppam demut ngëma nga fa ahlu sunna wal daal ki def bàkkaar bu mag te bàkkaar bu mag boobu àggut ci bokkaale naan na sàngara jëw na xas na nit sàcc na alali jàmbur kooku faafiq la waaye nag mu ngi ci biir lislaam mutlaqul imaan yi maanaam ngëmam lépp demut waaye nag diitu ko jox al imaanul mutlaq dañ faaw ñu xam ne mutlaqul iman ak al imaanul mutlaq mutlaqul iman moom dàqaluñ ko ko maanaam ngëmam léppam demul waaye nag al imaanul mutlaq muy ngëm nga lépp newu fa ndax xamoon nga ne jaamu yàlla yi dañuy wàññi ngëm yàlla euh, yi mooy yàlla yi dañuy wàññi ginnaaw def na bàkkaar bu mag kon ngëm yàlla wàññiku na waaye nag ngëm nga des na fa ba tey nag moo tax mu ne wal faasiqu kàccoor ba almilliyu ka nekk ci millatul islaam dul isyaani kay boroomi mooy lam yunfa dàqeesul anhu walis ko mutlaqul imaani léppi ngëm lakin bi qadri alfisqi walmaasi imaanuhu ma zaala fi intiqaasi mu ne laakin waaye bi qadri alfisqi ci kem kàccooram googee wal maasi ak mooy yàllaam yooyee imaanuhu ngëmam ga ma du dañ fintiqaasi di wàññiku rek ci sababu kàccoor googu yi mu kàccoor ak mooy yàlla yooyu muy mooy na yëg ne ngëm yàlla gaa ngay wàññi rek kon mën naa dem ba tuuti lay yóbbaale tuuti ci ngëm yàlla lay yóbbaale ndax ngëm yàlla wàcc wàññi na ba tuuta fa des kooku mooy ab atteem fii ci àdduna mooy kenn waxul ne ab yéefar la génn la lislaam comme ni ko xawaarij yi waxe waxuñu it ne génn na iman te demul ci yéefar ni ko mu'tazila yi waxe waaye ngëm nga fa waaye ngëm gu wàññi ko la te li fay mu mooy yàlla day continuer di wàññiku rek looluy atteem ci àdduna bu dee alaxira mu ne wala naqulu innahu fi nnaari muxalladun bal amruhu lilbaari wala naqulu dunu wax innahu nekke moom fi naari mi ngi sawara dun wax ne ma nga sawara bu ëllëgee it nag dun wax ne ku faatu yóbbaale bàkkaar yu mag rek yaa nga sawara kenn du ko wax mu xalladun di kuñ saxal sawara bal li am kay amruhu mbiram lil baari ñeel na sunu borom ñeel na aji bind ña kooku dañuy wax ne mbiram dañ koy delloo sunu borom ginnaaw mi ngi def bàkkaar yu mag ba faatuwaale ko kooku du wax ne ma nga sawar a mukk waaye it du ne ma nga lan xam daal mooy mbiram ma nga fa sun borom bu ko neexee mu jéggal ko tàbbal ko àjjana bu ko neexee it am fu ko jaarale muy mbugal ko ba noppi door koo génnee sawar yóbbu ko yóbbu ko àjjana moo tax mu ne taxta machiati l ilahi nafida in shaa faa anhu wa in shaa axada taxta machiati l ilahi kooku mi ngi ci suufu mi ngi ci ron coobare suñ borom an naafida coobareem ji nga xam ne ju wéy la ju exécutif la nga xam lu boobu mën na koo def inchaa maanaam bu ko soobee afaa mu jéggal anhu ci moom bu ko neexee mu jéggal ko wa insha bu ko soobee axadahu mu jàppee ko bakkaaram boobee mu doon def maanaam bu ko neexee mu jéggal ko bu ko neexee mu mbugal ko kooku loolu mooy ab atteel ëllëg nu koy mbugale mu ne bi qadri zanbihi walil jinaani am na téere yoo xam ne wa ilal jinaani moo fa nekk waaye loolu njuumte la kon bayit wa day dam bi am walil jinaani moo wér bi qadri danbihi wa lil jinaani yuxraju in maata ala al imaani maanaam aaxadahu mu jàppe ko bi qadri danbihi ci kem bàkkaaram la maanaam bàkkaar ba mu def mu mbugal ko loo xam ne dana ko yeyoo wa yuxraju danañu ko génne lil jinaani maanaam ilal jinaan danañ ko génne dugal ko àjjana in maata su fekkee ne faatu na alal imaani ci ngëm yàlla su fekkee ne faatu na yóbbaale ngëm yàlla suñ ko mbugalee it danañ ko génne dugal ko àjjana loolu sax na ci xadis bu wér yonente bi sallallahu alayhi wa ne képp ku faatu te ab xolam lu toll ne benn fepp ngi ci ngëm yàlla dana génn sawaram dugg àjjana su fekkee dugg na sawaram kon kooku lu mat a bàyyi xel la mu ne wal ardu taysiru alxisaabi fi nnaba wa man yunaaqashi alxisaaba udiba am na nu sax yoo xam ne yunaaqish moo ca ne waaye yunaaqash la xaaf koo gi ci kaw lañ koy maas wal ardu mooy gaaral ba wala won ga wala signalé ga bu la neexee taysirul xisaab yi mooy yombal xisaab maanaam xisaab bu yomb kook moom la ñu tudde al ard borom bi tabaraka wa taala daf ne fa amma man uutiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira ki nga xam ne dañ koy jox téeréem ci loxol ndey jooram nee na xisaab bu yomb lañ koy defal waaye xisaab bu yomb nu muy demee ndax mooy réglanteeg moom mboolem jëfam yépp topp ko yaa defoon nangam yaa defoon nangam yaa defoon lañ koy defal mooy gën a yomb mooy gaaral ko rek rombale ko yëf yëpp rombal gu gaaw daal di ko it demal wa yanqalib ila ahlihi masrura mu daal di wëlbatiku dem ca ñooñam daal di ànd ak bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bu wér wax mi ngi ci buxaari sax ne laysa min ahadin yuxaasabu illa halaka kuñ xisaab ku nekk nga alku ku ñu xisaab nga alku aïcha radiallahu taala anha ne ko ndax du sunu boroom moo wax ne fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasira am laaj bu am solo laaju fiq la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ñu xisaab nga alku Aïcha ne ko di yàlla nee na ku ñu xisaab kuñ jox téeréen dañ koy xisaab xisaab bu yomb loolu na mu mën a amee nga ne kuñ xisaab mu al yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko innama dalika al ardu ne ko loolu mooy gaaral gi dañ leen di gaaral bokkul ak xisaab wa man yunaaqash al xisaaba udib noonu la xadis ba tudde wa man yunaaqash al xisaaba udib mooy kiñ munaaqashanteel mooy ki ñu jàpp di ko corrigé topp ko li mu def lépp ñu seetlu benn bu ne ñu xool lu mu ca yeyoo nee na képp kuñ ko def rek buñ la seetee say mbir moom da nga tàbbi sawar waliyaasu billah ndax buñ seetee la nga jot def ci lu baax lépp ak li nga jot a def ci lu bon munaaqasa koog yow nag bu wér jëflanteeg yow xool yàlla ni mu màggee ak ni mu ñàkk a yeyoo ñi di ko moy nga jàpp ko di ko moy noonu ak àjjana na mu war a seere la fa ne ci ay xéewal ak li nga fi jot def ci ay topp yàlla ni mu suñ comparé ñaar yooyu nit ki moom day alko te ni ko benn borom xam-xam di waxee moo di sa jaamu yàlla yépp yépp boo dundoon junniy at sax ñu jël sa jaamu yàlla yépp dajale ko fi bërëb xool xéewali àjjana nam mel ñu ne la dañ lay fay lu tolloog li nga jaamu yàlla boo fa yendoo yenn lenn kendal balaa jant soo sa yëf jeex maanaam du mat kon foofu tey siir moo ci am borom bi tabaraka wa taala moo yombal mbir yi ci noonu ndax fa muy xool du quantité jaamu yàlla yi nga def waaye nangu nag gi nga ko nangul kon ne ko yow yaay kenn du ma la bokkaale kenn yow rek laay jaamu loola moo rëy ci suñu borom tabaraka wa taala booba loola moo tax loo def lu mu mën a doon bu fay mooy yàlla nekkoon saxit nag yërmande ji mën a yow waaye ci ku bokkaale wutal ko dara ci moroom loolu moom moy lu rëy la moom la nga xam ne yërmande ja moom day di làqu amatul foofu inna allaha la yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha bokkaale moom ku ko def moom jarul ngay seentu njéggal tuub parce que dafa rëy ñàkk a nangu nga dafa rëy ci ku la bind nga war a nangul ko lépp bind la kenn kenn fayu ko dara jox la xel jox la cër jox la man-man jox la alal sant la santaane yu yomba yomb nga jëm ne ko la ma la waroon a defal nit laa koy defal wala bàmmeel laa koy defal wala xiram laa koy defal wala kooku yooyowut njéggal wax dëgg yàlla yooyowu ko moo tax kenn du ko jéggal kon xisaab bi ñu wax foofu bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne wa man nuuqisha alxisaaba uddib koo xam ne jëflante nañu ak moom ci wàllu xisaab muy réglante moom réglante gu xóot faaw ñu mbugal ko bokkut ak xisaab ba ñuy tu ci fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran moo tax mu ne wa man yunaaqash alxisaaba udiba wala nukaffir bilmaasi mumina illa maa istixlaalihi lima jana wala nukaffir dun yéefarloo bil maasi ci ku gëm yàlla gëm yàlla daal ay mooy yàllaam nga xam ne da ci bokkaale yooyu du tax nu yéefarloo ko yàlla nga lu mu mën ci bokkaale dun ne ab yéefar la illa ma istixlaalihi lu dul ànd ak dagan lu ko maanaam mu ne lii dafa dagan istixlaalihi ak dagan loom limaa ñeel la nga xam ne janaa tooñ na ko tooñaangeem yooyee su ne lii may def nii dafa dagan ci man moo xam dagan googa nu ko firee nag moo xam daa weddi carrément diine kooku mu taxut ñu wax yéefar la wala sax wax na ne gëm na diine waaye moom daa jàpp ne daganalal nañ ko loo xam ne daganaluñ ko doomu aadama yi comme ni ko ñenn ñuy waxe jàpp ne daal da ngay jaamu yàlla di dem di dem ba mu yàgg nga àgg foo xam ne loola neexati def dagan lu googa su ca xasee ñëw kooku génn at génn lislaam am na su jàppee ne moom li muy def dafa dagan ci moom donte daganut ci ñeneen ñi mu woote ab sañ-sañ ci diine boo xam ne day fekk yiy tere woon mu ne dagan na ci man wala yiy digle woon mu doon ay warteef ci lislaam mu ne wàcc na ma man loola kéefam la moo tax mu ne wala nukaffir bilmaasi mumina illa maa istixlaalihi lima jana la muy def ci ay musiba su nee dafa dagan rek kooku musiba la weddi na alquran weddi na la yàlla tëraloon maanaam tëraliinu yàlla wim ne lii dafa nekk waajib ci yéen da ko war a def mu ñëw ne loola waruma man kooka xoolatu ñàkk gaa def loola waaye weddi la yàlla tëraloon foofa la ñuy xoole loola ko génne diine la saxoon ci alquran mu ne saxut wala la alquran tere woon mu ne diisu ko tere ndax dagan na ci man tëraliinu yàlla woowee mu weddi muy tashriya boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko def mu ñëw weddi ko moo xam day saxal moo xam day dàq loola moo ko yóbbee moo ko yóbbee kéefër kon loolu lu mat a bàyyi xel la ndax kat moom day mbir mu garaaw maanaam suñ ne la woon daf laa war nga ne li ma ba noppi ànd nit ñi di julli sax téewut yaa ngi ci biir jëf ja ak pas-pas ba bokk su ne woon sàngara dafa dagan ci moom ba noppi du naan sàngara it kéefar gaan dafa ba tey kon istixlaal moom lu garaaw la su fekkoon ne moom ci boppam gëm na ne sàngara ak yiñ tere woon yépp moom sañ na ko sañ na koo def waaye nag du ko def ba tey kéefar gaan su ko daganloo ba noppi di ko def nag ko moom taxum ñu wax kon ginnaaw waxtaan na ci ki nga xam ne alfasiqul milli la muy kàccoor bi nga xam ne mi ngi nekk ci biir lislaam tomb bi ci war a tegu mooy lan moo ko mën a génn ci kàccoo gi pour mu del siwaat nag jam ak ñëpp parce que musiba la feebar boo xam ne nit ki da koy yóbbaale ñi naan kii kat mën nañ koo jégal mën nañ ko bañ a jégal suñ ko dugalee sawar a génnewaat ko fexe bañ bañ ko dugal sawar loolu mooy mbir foofu la yëfee nekk fan mooy moyen bi nga xam ne ki nekkoon ab kàccoor di mooy yàlla di lekk alali jàmbur di wax lu dul dëgg di sàcc di naan sàngara di njaaloo yu bon yooyee lan moo ko mën a musal ba su tabbee su faatoo day tàbbi àjjana maanaam fisq googee dañ kàccoor gi nekkoon ci moom lu koy dindi loolu mooy tuub moo tax mu daal di ciy teg lu aju ci tuub mu ne wa tuqbalu tawbatu qabla al gargara kama ata fi shirati al mutahara wa tuqbalu nangu ak tuub kan mooy nangu tuub sunu borom tabaraka tuub moom boroom bi tabaraka wa taala rek lañ koy defal jéggalu nag danañ ko def nit léeg-léeg nga dégg ci sunu làkk yi ñu jëfandikoo baatu tuub foo xam ne du palaasam nga gis nit diggante jëkkër ak jabar mag ak rakk wala doom ak yaay ñu kaay tuubal ko njuumtel kaay jéggalu ko la pare kenn tuub moom yàlla rek tubtu moom ilallahi kon wa tuqbalu dees na nangu at tawbatu tuub qabla al gargara al gargaratu mooy sukuraat kama ata ni mu dikkee fi shirati ci sharia al mutahara biñ laabal sharia bu laab bi dikk na ci ne tuub balaa nit kee àgg ci faatu la ko war a def walaysat altawbatu lilladina yacmaluuna sayi'aat xatta ida xadara axadahum almawt qaala inni tubtu alaan wala alladina yamutuuna wa hum kuffaar tuub ñii amuñu ko ki xaar ba dee agsi mu ne tuub naa ak ki faatu yóbbaale kéefar ñooñu amul amatu jóg tuub kon bu ñu waxee alxarxara foofu laaj nañu xam sukuraat boobu lan lañ ci jublu ki nga xam ne dafa nekkoon ci kéefar wala mu nekk ci bokkaale wala mu nekk ci bàkkaar yu mag dem ba mu wër ko ne dee dikk na mu ne tuub naa kooku tuubam kenn ko nangu kon tuub dañ koy gaawe baadiru ila tawba gaaw leen jëm ci ak tuub wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun tuub leen yéen ñi gëm yàlla ndax ngeen texe loolu suñu borom santaane xarxara nag mooy nit ki dem na ba faatu dikk na faatu dikk na loolu mën naa doon ci feebar bu ñu nee sukuraat rek ñu bari dañuy defe ne ci feebar la ba tëdd ci lal bi mënatul dara waaye léeg-léeg nit ki mën naa tëdd ci lal bi sax te fekk dee gi téewagut mën naa nekk ci lalum dee waaye àggagut ci sukuraat ndax mu ngi ànd akum xelam mi ngi wax ñu mi koy tontu xam nga ne Abu Talib ba mu nekkee ca lalum ndee ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam toog fa ko wax lu laa ilaha illa allah ñu ngi wax di wax laa ilaha illa allah benn baat la boo xam ne boo ko waxee rek danaa am fu ma sukkandiku ba layal la ëllëg mu ne ko déedéet waxtaan ak ay kàngamam kàngamam Quraysh wër ko Abu Jahl nag gi mel noonu ñu ne ko bul bàyyi sa diine bàyyi mu lànk jafandu ca loolu ba faatu yóbbaale kéefam ndax foofu dañuy wax ne dafa nekkoon ci sukuraat a ah, su fekkoon ne daa nekk ci sukuraat li ñu tudde xar-xara ba noppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko waxloo foofu laa ilaha kon nu daal di ci jëli ne kon nekk ci sukuraat it bu tuubee waaye nekkul ci sukuraat ci lalum dee nag la nekkoon waaye àggagul woon ci sukuraat di xëm ak xim ni ki nekk day ñàkk sagoom ab diir bu yàgg léeg-léeg mu del si diggante su gàtt delluwaat waaye ki nekkul ci sukkuraat tëddul ci lal waaye xam na ni dee dikk na kooku bu tuubee duñ ko jéggal la daloon firawna firawna tëddul woon cib lal waaye génn naa ko nitam di dàq yonent bi yàlla Muusa duñu wax ne di ko dàq sax waaye noonu la borom bi tabaraka wa taala tëre mbir ma digal Muusa mu génn di ko gëf defe naa ne gëf yu bari ci yéen xamuñu ko hmm? bi Omar ah yaakaar naa bu amee koy xam Alioune Badara Sarr lay war a xam <laughs> Alioune Badara Sarr moom dana ko xam defe naa gëf waaw Aliou Mbàkke mooy lan hmm. hmm. ñu te joxewuñ ko ko. jazakallah xeer ah sëñ bi loo wax tayib ala kulli xaal gëf moom defe naa ni su fekkee am na nuñ ko mën a jegeele ci waxu ci saraa mooy nit ki nekk ci dara nga provoqué ko ba mu jóg topp la fekk topp googu ma la topp fa nga ko jëmee du fu baax ci moom te yëgu ko xeetu provocation lay doon bu doon ci àll bi ngay dund ak mala yi da ngay gis ne mbaam yi dañ koy def mbaam moo xam ne dafa am nu mu bëgg a def meneen mbaam di fekk ko ci biir mbaam yi won ko ne ko day daw mu di ko dàq fekk dafa bëgg mu génn dàq ko bañ sore rek mu wëlbatiku dal ci kawam mbaam su tuuti topp ci mu mag di ko dàq muy daw fekk mu mag moom may jiitu li mu jublu mooy ñu génn ba mu wëlbatiku ba màtt koo la mu def ko ba def loolu kooku bu dee ci saalum la def ala kulli xaal Moussa alayhi salaam borom bi tabaraka wa taala digal na ko mu génn mel ni kuy daw firaw na génn di ko dàq firaw na di ko dàq Moussa ñëw ba ak ci géej gi ci kéemaani yàlla géej gi xar doon suuf mbedd ubbi ko ci biir géej gi Moussa jaar ci biir mbedd mi di dem di dem ba mu yàgg lim rawe woon firaw na firaw na gis ndox mi di delluwaat kon géej delluwaat na doon dox digganteem ak Muusa mu geesu ci gannaawam ne kon naa dellu fa ma jóge woon ndekete lañ doon weesu moom ma nga doon booloo moom kon mi ngi taxaw ci as diggante soo xam ne géej a ci kanam géej ne ci gannaaw ah mu daal di ne indi tubtul aan tuub naa léegi gëm yàlla yi Muusa borom bi tabaaraka wa taala ne ko déedéet loolu mënta nekk kon kooku duñu wax ne ci lalop sukuraat la tëddoon waaye wóor na ko ne dee agsi na kon wala iyaasu billahi ki duggoon ci oto wala dara wala avion ba wala dara ba mu wóor ko ne mi ngi woon ay bàkkaaram ak lépp de wóor ko ne avion bi xawee na ci asafaan si jëm suuf muy tuub foofa tuub ga amatu njëriñ yëmul rekk nag ci dee itam waaye même bàkkaar yi nit ki doon def dem ba lott ci bàkkaar bi door koo tuub duutuñu ko nangu doomu aadama ngi jox ne da doon dox rek jaabanti kër yi jàmbur yi di rambaaj dem ba mu yàgg tànk yi baaxatul mënatul a génn mu ne man de tuub naa rambaaj kenn du ko nangu parce que mënatu la dem ki doon jëw di saaga di xaste ba mu yàgg faf làmmiñ wa mënatu la wax mu ne tuub naa rambaaj ak jëw kooku kenn du ko nangu xool yu bon rek la doon liggéey ci ay bëtam ba mu yàgg mu faf silmaxa ne man de tuub naa di seetaan yu bon yi duñ ko nangu ndax daa télé door koo wax nekk na ci yu bon yi itam ba dee dikk na nag mu door a tuub ba tey itam noonu kon tuub moom des koy gaawe jamono ya nga tolloo ci digg kàttan nga mën a waaxu di dugg ci kër yi di jaxase nga tuub toog ci sa kër wala booy dox nga dox ci wiw mën a wax lu baaxul nga tuub di wax lu baax mën a xool lu baaxul nga tuub di xool lu baax ah boobu tuub la borom bi tabaraka wa taala soxla moo tax mu ne qabla algargara kama ata fi shirati almutahara ama mata tuglaqu an taalibiha fa bituluu shamsi min maghribiha ama mata amma ndaal mata tuxlaqu kañ la ñuy tëj kañ la ñu koy tëj moom tuub bi taalibiha ci ña koy sàkku maanaam tuub kañ lañ koy tëj nga xam ne duusatul nangu genn tuub nag faf di da doon wax rek ci nit ki ki dem ba àgg ci sukuraat wala dem na ba àgg foo xam ne mbir ma sës na mu door a tuub waaye nag am na foo xam ne ba fa àggee moom yëkkati nañ buntub tuub faf képp ku mën a tuubati sa tuub duñ ko nangu mooy kañ nee na fa bi tuluwa shamsi ci fenkuk jant ba min maghribiha ca fam daan soo bis buñ xëyee jant bi fi mu daan fenke ñi miinoon ko mu jékki-jékki fam daan soo ñi xamoon ko muy fee mu xëy fenke foofa bu boobaa moom nit ñi ñëpp wóor na leen ni tukkiteel àdduna agsi na ku mu fekkoon nga nekk ci njaaxum nag nga ne man kat tuub naa ndax xam naa ne àdduna tukki na boo ko tuub duñ ko nangu bu boobaa yëkkati nañ buntub tuub duusat ko nangul kenn yàlla nu borom bi tabaraka wa taala xiir ci diine ji te xiir na ci tuub bala ñoo tëj buntam xiir na ci yoon def lu baax loo xam ne dafay yokk ngëm yàlla te musal ñu ci yu yoo xam ne dafay wàññi ngëm yàlla ñu laal ci lenn ci question yi nga xam ne jotoon nañ ko fi indi euh, door a déglu mbokk yi ci li fi des ci waxtu insha allah xool yi gën a aju ci wàllu pas-pas am na ci laaj yoo xam ne xëy na mënees na ci ñëw waaye day am yu ko gën a ñor ki dafa laaj mu ne ndax lu aju ci wàllu xadis yi nga xam ne day wax ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf leen di jéggal teñ mat juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne kenn du leen xisaab duñ leen def dara mu waxaale ca ne duñ duñ mocclu istirqa jooju moom moom lay laaj lu muy firi ak ndax duñ mocc lu googu day firi ni ñoom duñ dem ci kenn ne ko moccal na ok lenn ci borom xam-xam yi noonu lañ ko firee dañ ne moom day doyloo bu dee mocc day moccal boppam waaye du dem ci kenn ne ko moccal na ñi ci des ne moom day wakkiirlu sax ci yàlla faf du ca moccante du ca moccante du ca ñaasante ak wakkiirlu la faju ak feebar bu mu mën a doon sharia joxe na ndigal ci ñu faju faju goo xam ne bu dagan la faju goo bi bokk na ci mocc lu mocc goo xam ne bu dagan la ak yeneen i xeeti faju yu bari yi ngeen xam moo xam ci médecine la moo xam ci ay mocc la wala lu mën a doon ginnaaw lu dagan la kooku sharia daganal na ko bunt la boo xam ne bu dagan la waaye lu dagan yi nag kum neex bu fekkee ne sa ngëm yàlla àgg na ca nga àgg ci ne yàlla mooy saafara man mocc luwuma muñ sa feebar loolu martala ba la boo xam ne euh, ña ca àgg ñoom ñoo am daraja jooju doon naa wax ne nag du martaba boo xam ne wax xadiis bi taxul ne des ci woote maanaam kenn wowula ci da bàyyi mbir ma muy doxal boppam ba àgg foofa bu fa ngëm nga àggul jot a jéem boo ko jéemee du sotti boo ko jéemee itam du sotti moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee loolu ba àggal Ukaashatu bnu Mihsan ne ko ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñooñu mu ne ko ci ñooñu nga bokk keneen jub ne ko ak man mu ne ko bi biha Ukaasha maanaam Ukaasha jiitu na la ba noppi kon booba bunt moom dañ ko daal di tëj du bunt mu ñuy ubbi rek kenn ku ne ak man ak man ak man mu jàll ñépp dëgëre boo xam ne ak doole ci ngëm yàlla boo xam ne ñëpp àgguñu fa wax naa ne saxaaba yi doon dund ci kanam yonente bi sallallahu sax tolloowuñu woon ci ngëm ci misaalum Ammar ak bilaal kon ñiy dund gannaaw loola ñu ñuy wax kon yanul rek la nga àttan te bàyyi sa ngëm muy doxal boppam ndànk-ndànk ba àgg ca la nga àttan bis boo gisee muy yanu ay doj nga ne ah man kat kon sama ngëm ndeke àgg na fii waaye xaaral ma jéem a yanu doj bi loolu kenn du ko wax mu ne ndax ki nga xam ne daa nekk ci biddaa su dépassé alalam di ci wutub yoon ndax dana ca am tuyaaba sax na ci ab xadis boo xam ne bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla du nangul ki nekk ci biddaa li fekk bàyyiwul biddaa ba mu nekkoon yàlla du nangul ki nekk ci biddaa li fekk bàyyiwul biddaa kon kooku biddaa day wane leen lu rëy la lu mat a wattandiku la kon képp ku nekk ci biddaa danga war a wattandiku loolu moo tax ki ne ci biddaa moom amuñu yaakaar mukk ne li ñuy wax xabuul muy nangul ko ay jaamu yàllam dana am li fekk du moo bàyyil boppam tuub bàyyi biddaa yooyu mu doon jaamu yàlla yeneen mën naa wér mën naa wér waaye xabool moom meneen mbir la ñu nangul la ko kooku meneen mbir la moo tax jaamu yàlla dana wér te duñ ko nangu xajjale gu am solo la nag gépp jaamu yàlla goo xam ne gu wér la bu doon ak julli mu nekk ci biddaa di julli nga xam ne xam nga ne ak julleem wér na mën ngaa julli ci gannaawam te biddaam boobee mu yor mu nar a dox diggantee mag ñi nangul ko yow sa yoon nekku ci du la ca wàll même su nekkoon faasiq muy ab kàccoor ñi jiital ko mu nekk ilimaan loola mën naa tee ñi nangu ak jaamu yàlla am waaye du tee jaamu yàlla nga wér su fekkee ne mën naa julli su ko defee ka julli ci gannaaw ak julleem mën naa wér ñi nangu ko moom ma ca kanam ak julleem wér ñi bañ koo nangu parce que daal làmboo ci biiram luy tee ñi nangu ak jaamu yàlla loolu bunt la boo xam ne bu mat a xàmmee la lu ko moy rek da ngay daal di wax ne képp ku yor bidaa kenn julli ci gannaaw waaye du su fekkee ne biddaa ba daa dem ba àgg ci kéefër su àggee ci kéefër nag moom ay jaamu yàlla moom wératut bu boobaa jaamu yàlla ga wératut su wératul kenn mënta roy ci moom ki nekkoon mushrik ndax su faatoo jullit bi mën na koo jéggalul déedéet bu ko jéggalulee itam njéggal njéggalu ko kenn du ko nangu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def ne ko boo leen jéggaluloon juróom yoon sax du ma ko nangu kii day laaj ni ñuy waajale ay examen waaw wax naa jàng nag rek jàng daal te nangoo sonn nangoo sonn jàng mu méttee méttee méttee métti loolu rek waaye amut amut amut meneen pexe benn boroom xam-xam bu doon wax naan mu ne nit ñi ko topp dañ doon wax naan moom xam-xamam bi dañ ko ko sol noonu rek nee na ma ne leen sondeelus ndar si du ko wax hmm. sondeelus si du ko wax maanaam bu muy jàng sondeel yi mu daan taal di jàng nee na ñoom duñu wax ne dañoo jekki-jekki sol ma affaire bi noonu kon xam-xam moom jàng rek léegi nag lu gën a bari ci nit ñi jàng ci boppam moom lañ defatul dañoo jàngatul ndax dañuy jàng ci kaw ak taayeel di jàng ci kaw gaaw a sonn di jàng ci kaw boo jëlee benn bind répété ko diir bu gàtt bu mokkul nga ne man sama xel dafa neexul waaye fekk na du noonu da ngeen di def lu mel ne li cheikh ibn jibril doon wax rahimahullah boroom xam-xam boo xam ne ci xuffaas yi ma mujj xam ci la bokk xaafis la boo xam ne li mu mokkal kenn xam nu yàlla rek a xam na mu toll nee na jamono yi ñuy jàng seen baay ak seenub sëriñ nee na bu ñu masaan jox dars benn bind boo xam ne ab page lay doon wala nangami bayit wala yu mel noonu daf nuy wax jàng ko juróom-ñaar téeméeri yoon demal nga jàng ko sept cent nee na boobu ay xale lan suñ demee dañ ciy dugal tuuti njuuj njaaj jàng ko ñeenti téeméeri yoon wala juróomi téeméeri yoon daal di ñëw ne ko mokk na léegi nag nitu léegi ñaata ñoom lañ koy jàng ñoom li ngay jàng dafa neexut nu mu toll ndax jëlagun nga benn bind boo xam ne jàng nga ko ñaar téeméeri yoon mu doon benn paas kon jàng la mu laaj ci boppam da dut lu woyof nit ki dafay jàng jàng jàng ba aw làmmiñam miin li muy jàng am xelam miin ko su ko defee ci la xam-xam di door a duggee kii dafay laaj ci buntu kabaayir ñaari xadis yoo xam ne dalee na a gis euh, benn bu njëkk bi wax aljawaaz wala aljazari loolu mu ngi dellu ci ñoo xam ne seen jikko dafa bon nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne du dugg àjjana ku mel noonu mooy ki jikkoom baaxut beneen bi ci des laana allahu man gayara manaara al ard ki nga xam ne dafa soppi frontière yi suuf loolu lu yaatoo yaatu la mën naa dem ci tool digu tool ba fi nga digoo ak jiw sàngam nga ñëw soppi ko ba jël ay meetar ci suufus jàmbur wala këru jàmbur nga ñëw di tabax ak terrain nga jël ci genn wala meetar wala meetar loolu lépp ci soppi manaarul àbb ci la bokk danaa di wax ne bokk na ci sax nit ñu dëng ñi nga xam ne dañuy fekk euh, panneau euh, code de la route yi ñu def ci tali nga xam ne ci la nit ñi xamee code de la route bi léeg-léeg gis ku ku borom jikko ju suufee suufee ñëw senti ko sàcc ko yóbbu bu fekkee feer la ñenn ñi dañ ciy defar ay satala ko jaay ak yooyu feer yu mel noonu ñooñu soppi nañ manaarul ard mooy mandarga yi xam ne dañ ko faa tegoon daal ngir muy wane dara bu dee ñu bokk dara ñu ne seenu dig ngi nii yow sa frontière fii la yem diw sa frontière fii la yem nga ñëw soppi ko ngir bëgg a yokk sa suuf wala nga soppi ko pour sa intérêt bopp ñooñu borom bi tabaraka wa taala rëbb na leen ndax jannatul firdaws ñu mokkal alquran rek ñoo ko yeyoo déedéet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen di ñaan yàlla la ajjana ñaan leen ko firdaws ndax mooy ajjana yi gën a kawe ci ajjana yi kon ñépp sañ a ñaan firdaws ku mokkal alquran ak ku ko mokkal ndax am na âge boo xam ne bu ci xale bu jigéen bi àggee kenn mënatu la joxanteeg moom loxo ok am na maanaam tërinu laaj bi mooy ndax loolu am na moo koy am na waaye kañ la nag moo doon laaj bi kañ la xale bi àgg koo xam ne mëneesatu koo jox loxo bu boobaa ki doon ci moom ab jàmbur mënatu koo jox loxo mooy saaboo boo xamee ne àgg na ci atum ne kii warees na koo mën a bëgg ci at yi ne kii warees na ko mën a bëgg loola nag dafa yëmut fenn moo tax daal boroom xam-xam yi dañuy wax ne fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di diglee ne xale ya bu fa àggee nañ leen dóor ci julli te taqale leen ca tëddukaay ya foofu mooy fi nga xam ne ku fa àgg ku nekk rek moom waris naa tàmbali jëflanteeg yow ni ñuy jëflanteeg mag loolu mooy fukki at fukki at waaye nag léeg-léeg nit ba noppi bindam yor melokaan waxam day mel ne ku wees fukki at kon moo tax dañuy wax ne baabit bi muy régal général bi ngay jëfandikoo foofu mooy jëmmi nit ka ci boppam boo ko ne jàkk xam ne kii mën na laa fitna loolu mënu ko sooy nattab le ndax mën na ko mënu ko bul laal waaye bul laal ndax ni ko wolof yi waxee boo gisee jaan ñi naan dana màtt ak màtt bul ko jox sa loxo rek yow bul ko jox sa loxo moo gën a wóor nit ki képp koy fitnaal bu ko gisee dina ko xam ndax ak jabar mën naa jeexital ci pas-pas déedéet na maanaam nit ki ñuy jabar ko pas-pasam yàqu moom loolu mënta nekk ba mu nekkoon ku yor tawxiid mu xëy di bokkaale ndax de dañ koo jabar déedéet loolu moom ak agut nag foofu dari nag njabar mën naa dem ba doxloo ko waaye su defee ñu xam ne taklif wàcc na ko maanaam yañ ko doon teg mu doon yu ko sharia di digal ak yu mu koy tere yooyu moom dañ na ndax nit ki mën naa am ñaari imaam ci genn julli euh, cheikh ibnu usaymin rahimahullah ci fatwaam loolu daganal na ko maanaam daal nit ki ñëwoon na di julli ci gannaaw imaam imaam rawe na ko ay rakka bi imaam sëlmalee mu jóg di fay la ko dese woon yow nga dugg si euh, julli ci gannaaw kooku maanaam mu nekk maamum ba noppi nekk imaam maanaam loolu loolu dara nekku ci ci fatwa Cheikh Mouhamad Ibn Ousaymin moom da ko tuddee ñaari ki nekk ñaari imaam waaye julli gi ci boppam moo am ñaari imaam waaye nit ki nekkul ñaari imaam kenn ki imaam ja mooy imaam ja rek euh, waaye julli gi nit ki dafa nekk maamoom fii wëlbati ku nekk imaam fee loolu incha dara nekku ci su fekkee am nañu mën a jël microphone bi posé leen ci ay question incha allah Omar tartibal ñi ngay jox kii microphone bi ah, yow ba mu fekk mu fekk ba mu nekk waxal laa ilaha illallah mhm. ba mu gestu faro pap mu après après tour mu daal di baax na ci euh, li ñu déggee ci xadis mooy xale bi agul woon ci sukuraat ndax xale yahut bi dafa feebar fekk nit ku daan liggéey ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam surga la ko woon ami fan dikkul mu laaj te ñu ne ko dafa feebar yonente bi alayhi salaatu wasalaam jóg dox fekki ko kër baayam seeti ko bi mu dikkee fekk ko mu tëdd mu ne leen moom laay seet si bi mu àggale mu ne ko aslim duggal ci lislaam xale bi mun te tëb rek ne dugg naa ci lislaam mu geesu di xool baayam papa jaa ngi toog mu di ko xool ah papa ji ne ko toppal lim la wax wuyul abul qasim ci lim la wax xale xale bi daal di wax ne ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah xadis ba foofa la yem yonente bi alayhi salatu wasalaam daal di génn ne alhamdulilahi alladi anqadahu min annaar maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ko musal ci sawara muy laaj ne ndax xale bi ci sukuraat la nekkoon wala déet li ñu déggee ci xadis mooy nekkul woon sukuraat su fekkoon ne sukuraat yoo xam ne mi ngi bëgg a dee la du am xelum di xool ndax baay bi dana ca mer wala du ca mer kooku danañ ko ci jëlee ñaareel bi mooy amul ci xadis bi lenn lenn luy wane ne xale bi ci feebar boobu la faatoo luy wane ni ci la faatoo nekku ci waaye dugg gëm dugg ci lislaam moo tax yenent bi sant yàlla mi ko musal ci sawara amma kañ lay faatu nag loolu moom nekkul ci xadis ñaari laaj nga am benn bi mooy dama gis ci benn téere benn borom xam-xam ci wàllu suñu waaw muy wax laaj bi ko laaj ko doon tontu muy wax ne nit ki maanaam mën na am soxna wala mu nekk ci kër ay musiba di ko ci fekk ay musiba di ko ci fekk maanaam mënuñu doon góorgóorlu am yàlla ko wërsëgal mu dëkk ci benn kër affaire yi daal tàmbalee am li ma amoon kay ñu laaj ko ci loolu mu ne ndax nit ki mën mën na jàpp kër gi mu dëkk moo ko yóbbeeloo wala soxna si mu tàkk moo ko yóbbeeloo foofu chef bi ñu tontu mooy ni loolu mën a nekk parce que yàlla subhanahu wa taala mën nay faral di wane ni soxna si nga tàkk ma baaxul woon ci wala euh, kër gi nga xamante ni moom nga dëkk nekkul kër boo xamante ni amaana dina la jural yiw ëllëg ci sa wàllu dina yooyu noonu yàlla mën na la koy wane xaw bu ko defee nga daal am xaal euh, loolu mu wax xaw ma ko man gisuma itam dalilam liñ xam mooy li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne gaaf mën naa nekk ci kër mën naa nekk ci daaba mën naa nekk ci jigéen liñ ko laajee mu ne kër gi mooy mu xat daaba ji mooy mu ñàkk mokk jigéen ji mooy mu ñàkk a dégg ndigal nee na loolu mooy seen gaaf amma nag ñu ne kii bu takkee jabar ji ñu ne seen wërsëg dëppoowul wala ndaw si indaale na loo xam ne xeetu gaaf la wax da koy xañ wërsëg wala kër gii mu dëkk ci boppam moo ko xañ wërsëg loolu moom kiimaan la moom rawatina nag mu jóge ci cheikh bi nga xam ne danga ne ci la jóge soxla naa lool gis fatwa boobu fan la nekk ba xam ña ko déglu ñoo déggul lam wax wala su dee lu mu bind ndax Euh, dañoo jàngalam bind te dégguñu ko wala déet wala dafa bokk ci njuumte yi gaar doomu aadama yi nag rek ndax loolu itam dafay am dafay am doomu aadama ju nekk day juum waaye loolu jàpp naa ne moom bu jógewoon ci Cheikh Ibn Ousaymin wala keneen ku dul moom it li ma jàpp mooy jàpp naa ne loolu moom du noonu gaaf moom du dikke noonu ci kër ak ci jigéen ñu ne da koo jibut alal ja dem na ndax kër gi mu dëkk moo tax wala ndaw si mu takk moo tax déedéet loolu moom nekkul ci charia ndax su doon loolu charia dana wutal solution maanaam musiba mu toll noonu nga xam ne mën ngaa jekki jékki dëkk ci sa kër fere sa xaalis ba àggal dugg rek sa alal yépp dem kooku war naa mën a am saafara ci sharia kon kon boo bëggee dugg ci kër noo war a def ba xam ne lii loola nekku fi loola sharia waru cee noppi jigéen ji nga xam ne boo ko takkee sa alal dem war na wax ni jigéen ji nga xam ne kat boo boo ko takkee sa alal dem nii lay mel ak nii ak nii defe naa ne loolu moom ñàkk gee am saafara day wane ne loola ci boppam amut yooyu bismillah. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. léegi dañuy ki nga xam ne dafa def bàkkaar parce que jàpp na dagan na kooku dañ koy yéefarloo. naam. mu def ki nga xam ne keneen day def bàkkaar bu mag mu jàpp ne kooku loolu dagan na ci moom ndax kooku yi ba tey day dugg ci kéefarloo boobu wala déet. képp koo xam ne am na lu yàlla xaraamal nga jàpp ne dafa dagan. moo xam daa dagan ci yow la dafa dagan ci keneen waaye loolee dagan na ci nit loola kéefar la ndax weddi waxi yàlla la weddi tëraliinu yàlla la kooku kéefar la feebar yi dul wér moom dafa bari lool ba nga xam ne jotewut dara dara ak nit ki ne aw fanam gàtt na kon am na feebar yu bari yoo xam ne dañuy dal doomu aadama yi ñu xam ne feebar yooyu amaguñ lu koy faj ba mu wér waaye nag nit ki mën na ko yor di ko dundaale nag ànd ak activité yam doon def yépp diir bu yàgga yàgga yàgg kon kooku kenn du ko xiyaas mukk ci xeetu sukuraat su tuuboon it insha allah yàlla dana nangu ak tuubam bi lépp loo xam ne dafa doon ay moye yoo xam ne dañ koy jëfandikoo ci tasaare lu xaraam moo xam xaraam googu daa xaraam ci wàllu jëfandikoo wala dafa xaraam ci wàllu pas-pas li jëm ci wàllu ay njabar ak ay xaatim ak ay yëfikaan yu mel noonu képp ku ci yor sa machine wala sa intermédiaire bu lu mel noonu dikkalee gàntu ko bul ko jëfandikoo daganul ci sharia wallahu alam ñu ne waxtu wi jot na kon laaj bu mujj baa boobu waxal wax ki nga xam ne du ab jullit bu ñëwee ne la wala asalaamaaleykum wa rahmatullah la nga koy tontu mooy wa aleykum dem foofu noonu la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ki jullit bu la nuyoo nuyoo jullit la nga koy tontu mooy wa aleykum waaye bul àgg ca salaam ja nga naan ko wa aleykum wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi aleykum wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aleykum wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aleykum wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain aleykum wallahu taala